فيكون في المراد حمدا لمن يفعل كل ما أراد بقوله كن فيكون في المراد Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande, mais quel est donc votre secret De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en dix jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28 pour cent des voix le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour avril, la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent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 juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Dahar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont à première vue l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président la République, Bassirou Diomaye Diakhar Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui le président de la République et installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses, entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités. Ses voeux de succès et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis, et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple placez en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, veuillez lever la main droite.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 Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre jours jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. ovation pour euh, Bassero Diomaye Faye, cinquième président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient donc euh, de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Il sera le garant de la Constitution, président de la République, chef de l'État du Sénégal. il devra justement, comme l'a rappelé le président du Conseil constitutionnel, euh, M. Mamadou Badio Camara, de répondre aux aspirations du peuple avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal, jeunes hommes et femmes du Sénégal, qui donc euh, ont participé à son élection et vous le voyez sur ces images, les membres du Conseil constitutionnel qui viennent le saluer, saluer Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cinquième président de la République. Dans son discours, le président du Conseil constitutionnel lui a donné trois conseils. Éviter l'ivresse de la puissance, les démons de la division et se rappeler toujours, constamment, de la main de Dieu qui aujourd'hui lui a permis de présider aux destinées de ce si grand pays qu'est le Sénégal. Kona Gramaboy, président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son excellence, est définitivement installé dans ses nouvelles fonctions. samp nañ ko ci euh, liggéeyam bu bees muy njiitu réew Sénégal di juróomeelu bi yoon bi ñu koy amal mu nekk nag moo gën a ndaw ci njiitu réew yi fi jot a am yëpp ci taarixu politiku euh, Sénégal Ibrahima xam naa ni euh, day fotandoo ak waa conseil constitutionnel ñu jàpp rek ne Ibrahima kilifa diine yi tamit ak kilifa aada yi tam teew nañu fi te teewal nañu fi ku baax ku tedd ku sel sell ci Touba Serigne Fallilou Mbacké son yu bu moo ko fi teewal kon nag ñu jàpp teewal sëñ Mountakha mooy ku baax ku tedd sell ki ci Touba sëñ Mountakha Bassirou Mbacké kon ñu jàpp rek ne tamit eh, kilifa diine yi ñoom it kenn ku si nekk am nga ku la teewal tey ci bis bu am solo bi ci eh, ah, ah, ah, ñoom ñoo yor ñaan yi ñoo yor ñaan macha allah da leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziarale tamit eh, sëriñ Abdou Samad mu sañ son yu bu ñu koy ziar ak sëriñ Cheikh Say mu sañ son yu bu nga xam ne mooy xalif bi kon nag mu ngoog président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy juróomeelu président président de la République du Sénégal euh, le président Badio Camara ak waa conseil constitutionnel ñu mu àndal samp nañu ko ci euh, liggéeyam bu bees léegi nag Ibrahima euh, séance bi levé nañ ko mais léegi jeexagul dafay daal di dem ca pale ba fekk fa ki nga xam ne moom la fi wuutu di président Macky Sall ñu àggale li nga xam jëm ci wàllu xew-xew tey jii. moom si boppam. Euh, conseil constitutionnel moom si boppam delloon na njukkal président Macky Sall engagement bi mu bi mu jël taxawaay bi mu am ba élection yi si diir bu gàtt ñu mën ko def lépp jaar yoon amul contestation euh, ki nga xamante ne ni Mouhamadou Makhtar Cissé ministre de l'intérieur euh, conduire scrutin bi ba finalement Bassirou Diomaye Faye nekk président de la République ñu delloo ko njukkal moom ak président Macky président conseil constitutionnel moo ko doon fàttali léegi ni seen taxawaay ak conseil ak dalal bi mu dalal Bassirou Diomaye Faye cëppale avant même ñuy joxe résultat définitif yi yu conseil constitutionnel parce que ñoom rek euh, ñoo yore kàddu gumu mujj gi si mbirum élection laata loolu président Macky Sall dalal na ko pale ñu waxtaan ñu saafanto du ñàkk sax euh, weccoo ay xalaat ci euh, Sénégal nu mu war a doxee te président Badio Camara wax na ko na ko expérience bi président Macky Sall am si mbirum euh, gérer état lépp lu jëm si mbirum nguur war nañ ko mën a continuer jëfandikoo waaye tey kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ndaw di ndawum Sénégal moom mooy jël li nga xamante ne moo di raaya réew mi te sànq rek ñu ngi doon fàttali encore une fois de notre programme qui se déroulera comme suit. Tout d'abord, son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national du Lion et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre national du Lion. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, prononcera son discours d'investiture. À la fin de son adresse, Monsieur le Président de la République recevra dans l'ordre les félicitations du Président du Conseil constitutionnel et les membres de Mesdames et Premières Dames, de leurs Excellences, Messieurs les chefs de l'État, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des chefs de délégation et enfin des présidents de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de cette séquence, Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. la revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national de Lyon et la plaque. À l'issue, il rejoindra le pour se faire remettre le collier du grand maître de l'ordre national de Lyon. Voilà euh, le cérémonial qui se poursuit. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en compagnie de son Excellence euh, Mamadou Ndiaye, chef du protocole de la présidente de la République, avec le grand chancelier, le général Maïsagnan, qui vont procéder justement à l'autre euh, aspect de cette cérémonie officielle. Il va recevoir donc euh, les sceaux de la République à travers ce collier que Ibrahim Anong nous a présenté dans le journal du grand maître de l'ordre national du Lion. Parce que c'est ça la tradition républicaine. et dans un instant ce sera donc Feira Mabouy waaw muy càq ba nga xamante ne rek euh, ki nga xam ne mooy grand chancelier bu ordre national du lion di le général Meissa Niang moom moo ko koy euh, takkal moom la àndal sax euh, Ibrahima ak ñi nga xam ne ay collaborateur am la ñu maanaam ñu bokk ci cabinet Eh, dinañ dem nag eh, takkal ko ko waaye cérémonie bi loolu jeexalu ko de Ibrahima foog mu dellu si waat tamit eh, ndax nag soldat si foog ñu delloo ko njukkal bu baax a baax nu jàpp rek ne daal mën nañu wax ne daal cérémonie bi lu koy jeexal mooy bu pare ci lii ñi nga xam ñoo fi teewal institution yu nekk ci réew mi dinañu ko ndokkeel nu ñu ko waxe ak gan yi nga xamante ni ñoo jóge seen réew ñoo teewe xew-xew bu am solo bi dañu ko ndokkeel ak nga xamante kilifa lañu euh, buñ ci noppee nag euh, soldaar si daal di ko delloo njukkal mu soogay nag jeexal xew-xew euh, waat bi nga xamante ne rek waat na ko léegi ci kanamu conseil constitutionnel. waa xam nga lu am solo Rama mooy république Sénégal benn la. Mhm. réew mi benn la. moo tax ji nga sécurité bi ñoom ñëpp ànd jox ko cër. bi mu moom moo tax ñi ngi gënam suñu force de défense et la posture républicaine qu'ils ont l'armée la gendarmerie la police euh, les sapeurs-pompiers euh, le service d'hygiène militaire paramilitaire dans deux jours nous allons le 64e anniversaire de notre indépendance ce cette euh, jeune génération d'hommes politiques qui prend le pouvoir aujourd'hui à travers Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et tout à l'heure, nous annoncions également que le président du Ghana, Nana Akufo Ado, est bien présent dans la salle, de même que le Premier ministre Sidiki Kaba. Ils sont tous là pour euh, assister à cette euh, cérémonie officielle. qui consacre l'investiture de Bassir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme président de la République du Sénégal. À partir de maintenant, d'aujourd'hui donc, il sera installé dans ses nouvelles fonctions. Et le président Badio Camara tout à l'heure rappelait ce qui s'est passé juste avant cette élection, les péripéties, ce qu'on a connu avec... Euh, ces suspicions sur le fichier électoral, sur euh, le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il a rappelé qu'il n'y a pas eu de crise institutionnelle au Sénégal. Mm. Après, justement, que des députés de l'Assemblée nationale aient voulu, euh, justement, enquêter sur euh, ces supposés actes de corruption contre certains membres de ce Conseil. Et certains, par et par dignité, ont dû démissionner. Il a rappelé que le Sénégal reste le Sénégal. Ce pays où l'électeur est le seul maître du jeu quand il s'agit d'élire une autorité politique. Il a rappelé encore une fois cette sagesse de tous les chefs d'État du Sénégal qui ont toujours respecté les décisions du Conseil constitutionnel. kon jiit da ngay wane li gën ndax bu subaa ku la wuutu war mën a def li gën def. Mhm. ñoom suñu am jafe-jafe ak euh, président yi fi nekk yi fi mës sa nekk ndax décision yi mës a jël yëpp ñoom président yi dañ ciy tënku ak coow li ni mu bëri avant élection yi ak yëpp mi ngi fàttali ni ñoom du ñu nekkee seen ay xarit yu nekk bi bitim réew parce que soo nekkee juge wala magistrat wala journaliste nga am ay xarit feneen ñoo xam ne yéen a jàngandoo mi ngi fàttali ni ñooñu ñëpp dañ leen di ne Sénégal la lu ñu jaaxal mooy saa ñu demee bi foog ne gaal gi dana suux si mbirum politique ngeen jógaat nekk benn toog waxtaan ba jubo Sénégal pays de dialogue Senghor juumu lool ndax dialogue am na fi avant élection yi di am ñii d'accord si li ñii bañ a d'accord si lii bu ñu demee ba si biir président Macky Sall xam ne lii tënk ko si élection ñu def ko kuy gañ a gañ a moo gën a woo amul ay laam-laame troisième mandat wala ay élection du am wala ñoom it seen tey jii président conseil constitutionnel fàttali na ko nee na administration sénégalaise ak ñi nga xamante ne ñooy gérer élection yi DGE Sénat avec une justice mañ koy wax neutre et indépendante parce que tey jii tamit fàttali na sénégalais yi justice bi nu mu tëddee njaxanaay loolu lañ koy waxee si mbirum politique te loolu dafa am solo parce que lu mel ni institution judiciaire du troisième pouvoir dans un système démocratique institution boobu dañ ko war a cëral hmm. ñoom aussi ñu gën leen ñaax gën leen ñaanal ñu def seen liggéey ci anam yu parce que juger dafa dafa diis juger dafa diis nekk président de la république dafa diis hmm. peut que ça bokk na ci liggéey yoo xamante ne soo amee déglu rek ak seetlu mën na nekk lu yomb ci yow hmm. moo tax président ne ko président conseil constitutionnel ne ko moytul l'ivresse de la puissance maanaam bu la pouvoir bi jay jay ba nga lu la pouvoir bi di may yëpp bu mu tax nga mel ni ku naan dara ba màndi walla nga dem ba foog ne keneen nga kudul saa borom parce que mi ngi koy fàttali ni bul mës a fàttee saa borom nga xam ne moo teg loxoom si sa élection bi le ndaw yi yaakaar si yow jigéen ñi yaakaar si yow ñi nekk ci région Sénégal yi ñi nekk si village yi nekk si dëkk bi nekk si administration sax yaakaar si yow ma ne ko moytul les démons de la division maanaam seytaane yooyu nga xamante ne tàggale rek tàggale féewale lañ fi nekkee parce que lu bëre soo nekkee président rek yàlla may la cër boobu da ngay commencer am ñoo xamante ne dañ lay indil yeneen yi façon jikko moo tax président bi di grand chancelier moo koy takkal ko li nga xamante ne mooy wanee ni moom tey jile sol na costume président de la République du mhm. Sénégal je voudrais respectueusement inviter mooy le général de corps grand chancelier de l'ordre national du Lion à venir remettre à Monsieur le Président de la République, le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion. Voilà, le général Meissagnon, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République, gardien de la Constitution, Les sceaux de la République lui sont remis. La signature du procès verbal de remise de collier se fera ultérieurement au palais de la République. parce que lii beneen mbir la aussi. excellence am na collier bi am na gaynde am na bawoo ñun ñuy am bu Sénégal. ok. j'ai maintenant l'honneur de prier très respectueusement son excellence monsieur. Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République de prendre la parole pour son discours d'investiture. Les ovations de la salle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 Excellences Adama Barrow, président de la République de Gambie, Excellences Docteur Julius Madabio, président de la République, président du Conseil national de transition de la République du Mali, Excellences Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Monsieur Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda, Excellences, Monsieur Aziz Akhanouche, Président, Premier ministre du Royaume du Maroc, Excellences, Monsieur Moussa Faki Mohamed, Président de l'Union africaine, Monsieur Omar Ali Touré,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 L'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté conforme aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Djamnyadjo, il a pris l'engagement d'être le garant de la Constitution. Un Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté. Un Sénégal où la justice sera indépendante. Un Sénégal à présent, qui pourra à venir chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Bassirou Diomaye s'est engagé à faire après sa prestation de serment Ramaboy kon président wax na. discours bu responsable bu génn ci làmmiñu ko responsable tàbbi ci nopp ñu responsable Ibrahima discours bi dal na xel te nag euh, discours bi euh, daal euh, mën nañ ci am yaakaar gu bëri bari bëri. Ah, dafay nuyu soxna mi madame les premières dames Ramaboy loolu la ñuy wax am na solo. sàkku ay ay ay ñaareel saa su ne <laughs> yàkkamti mayee jabar mbir baa dafa xew ñaareel si boppam moo xew finalement loolu la xale yi wax en tout cas tontu bi daal yéex na Ibrahima donc ñëw nañu ko ndokkeel dañu nekkoon si lu ëpp solo loolu Rama Boye lii mooy événement bi président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy dalal ay ganu Sénégal ñoom ñooy ñëw benn kenn kenn ñëw nuyu ko voilà président Mauritanie di président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani moom mooy euh, njëkk nuyu ki nga xamante ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ñu jàpp mi ngi fàttali aussi jiitu réew Mauritanie. ngi fàttali aussi ni mu nammee liggéey. Mhm. pour que Afrique nekk continent mhm. une Afrique de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam président Ghana Nana Akufo-Addo moom mooy euh, ñëw. nuyu le plus jeune président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga nag ree bi ak xool bi da ngay xam ni moom comme on dit en français il est droit dans ses bottes ku dëggu la maanaam dal bi seetlu nañ ko si moom tey bi seetlu nañ ko si moom dal na tey na yar bi seetlu nañ ko si moom mën nañu jàpp ni royukaay la si ndawum Sénégal maanaam tey jii mooy représenté ndaw yi nga xamante ne ñi ngi juddu après les indépendances et après et après maanaam 1980 bi Senghor di joxe pouvoir bi si juddu 44 ans après mu ñëw nekk président de la du Sénégal ba pare dool si nekk comme Senghor <laughs> yow moom yow yéen ñaar ma ngoog taamu ko si buuru mooro moom kon euh, son excellence Adama Barrow di njiitu réew Gambie mooy ndokkeel noonu président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais Ibrahima est-ce que nekkul le plus jeune sax président de l'Afrique je pense que africain yëpp moom moo ci gën a ndaw ah. fi ñu toll si jot a moom mooy c'est le cadet ah des des présidents élus dans Sénégal et c'est tout à l'honneur parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure au-delà le Sénégal qui est sorti vainqueur de ce scrutin du de la République yëpp nekk ci réew meeg bitim wax na ko waa jàpp nañ si parce que bon euh, sànq rek jot nañ ci waxtaan ak ñaari nit. Mhm. bon comme on dit Sénégal foo mënti nekk war ko ko mën a liggéeyal muy. Mhm. ku nekk euh, Madaxun wala si diaspora bi fële ca Tokyo ñu lay nuyu Sénégalais yi nekk foofu. États-Unis États-Unis euh, Canada Italie waa France ñoom ñëpp macha allah. voilà Europe Amérique xam nga Sénégal ak drapeau président Guinée Bissau euh, président Guinée Mamadou Doumbouya nee naa la mooy invité surprise bi Ibrahima waaw. vraiment lii moom neex nañu lool lool lool. moom comme li ñu koy waxee xale yi comme li ñu koy waxee am na buzz am na il a la cote. am parce que xam nga nag. saa yu ko tuddee rek gars yi tàccu. c'est ça ak ni ñu mel waa Guinée loolu moo tax bu ñu tuddee seen njiitu réew wax dëgg yàlla xool yëpp ay feex. moo tax am na kàddu yu dégg fan yi sax si yenn mbir yi concernant étranger yi fii Sénégal waaye wax dëgg yàlla Sénégal ak Guinée. benn ah dëkk la non ñun moom Guinée moom ñu ne ko ñoom ñoom benn lañu. dëgg yàlla. président Cap-Vert. Le président Neves qui vient également saluer le président de la République du En direct sur la ces images... Euh, Son Excellence, Monsieur Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria. Ces images de l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président du Nigeria, le président Tinubu. bu soloo nii sa xel dafay dem ci Olusegun Obasanjo xam nga nii la daan solo. macha allah waaw Nigéria Nigéria ñoom. xam nga ñoom il est devenu observateur je pense. oui ci affaire euh, élection yi. président président des des observateurs africains. son excellence monsieur Tchemoko Meye Kone. président bu Côte d'Ivoire muy ñëw. maa ngi ko doon wax moo doon ancien gouverneur BCEAO yàgg Dakar fii nekk ci siège bi mais président Alassane Ouattara tànn ko def ko vice président yebal ko fii mu ñëw représenté ko ci investiture euh, président de la République du Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal voilà la même famille hein, mm -hmm. qui se retrouve euh, Et c'est pour cela on les a laissés euh, gagner la Coupe d'Afrique tranquillement. voilà. Le président de l'Assemblée nationale, euh, voilà, du Mali, Diao, qui vient saluer également le président Bassirou Diomaye Diakhar Quand il parle de souveraineté, c'est dans l'ordre normal des choses dans cette Afrique. Parce que de plus en plus, on sent que les peuples africains ont besoin de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge avec des leaders à la hauteur de leur mission et des, des attentes. On a reçu tous des Mali, des Gaïtatou, mhm. Guinée Gaïtatou, parce que dafa mel ni dafa am message bu ñuy lancé Burkina Faso. pour wane ni Afrique mën na demal boppam. Mhm. teewul nag dinañu liggéey ak. Euh, puissance puissance étrangère yeneen dëkk yi mënul ñàkk loolu moo normal te Bassirou Diomaye président de la République euh, fàttali na ko sànq ci discours am mënul mënul ñàkk faw nga liggéey ak yeneen yi réew ci Afrique ak ci biti euh, yeneen continent yi premier ministre de la République du Rwanda premier ministre Rwanda am na ñoo xam ne bu leen ci formé sénégalais yi dinañu mën a demal seen bopp l' essentiel rek mooy nañ leen nag tàggat. bien sûr parce que xam-xam. du italien. Mhm. du américain. du sénégalais. xam-xam du japonais. xam-xam nit nit moo ko moom. nit lañ ko jagleel la ko saa borom jagleel. kon lépp lu nit mën a def rek. borom mën mën na ko def. su ko tegee si condition yi tax mu mën a sàkku xam-xam. ba pare jëfandikoo xam-xam bi. Mhm. ut si njëriñ. mais pare di dundal xam-xam. comme kilifa yi ñu mag yi ni ñu koy waxee kilifa diine yi. Mhm. ndax xam-xam dafay am njariñ. te loolu donc dans dans son discours tout à président conseil constitutionnel fàttali na ko jeunes yi espoir bi ñu am si moom moom aussi nee na dina def kéemtalaay kàttanam pour mën a. Euh, moom ka jox na ko conseil yu am solo ka jox na ko conseil yu am solo. parce que li ñuy wax si xam-xam man ay tubaab bi nu nit moo amatul. yooyu waxu xewi la tubaab bi nit la mooy créer avion africain yi ay nit la ñu mën nañu créer avion su leen neexee mën nañu créer ay oto mën nañu transformer produit yi jógee Afrique c'est vrai que ñoom occidentaux yi seen technologie moo gën a kawe tey soo bëggee liggéey si pétrole fa nga mhm. soo bëggee defar avion faw nga woo soo bëggee wala nga dem jàngi fa seen kàpp xam na mais du xam-xam boo xam ne ñoo ko moom xam-xamu nit la mm. nit moo ko moom. ministre des affaires étrangères. kon président commission léegi. et lii mooy wane xoolal président de la république du Sénégal 44 ans. Mm-hmm. jàng il a parce que commissaire de police la bëggoon nekk. Mm-hmm. monsieur Omar jàng def yeneen concours dem ENA mais nekk e inspecteur des impôts et kon xam nga yooyu yëpp day wane ni dara jombul doomu aadama. wala surtout sénégalais. sénégalais Ibrahima lu mu bëgg doon mën koo nekk. l'essentiel rek mooy nañu ko nañ nii nii nii. le président de la commission de la CEDEAO. xam xam nga xale yi fi mu nekk nii ni ñuy takk ne euh, filière tec technique yi maanaam ñu ngi jël affaire technologie surtout étudiants yi mën nañ defar san avion l'essentiel nañ leen jox moyen bi. mais ordinateur mooy wane ni xam-xam kenn moomu ko. Ah, parce que lu japonais bi di def wala sénégalais italien bi wala américain bi def suñu doom yi dañ koy def léegi. Abdoulaye président de la commission, Loli et moi, c'est notre compatriote mhm. voilà, qui dirige euh, cette instance euh, sous-régionale, une institution qui travaille pour l'intégration économique euh, et monétaire dans la sous-région ouest africaine, Abdoulaye Diop, donc, qui salue le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. nañu gëm. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. ni dara jomb suñu mën dem si yenn mbir yi ñu dékku ko ñeneen nekk ay góor président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop Ibrahima mu ñëw félicité voilà président de la République ay institutions yoo xam ne faaw ñu liggéey faaw mhm. c'est le pouvoir législatif et le mhm. pouvoir exécutif voilà juges yi ñoo ko installé mais après ñoom dañuy dem toog seen place jàpp seen ñaambur Ibrahima Aminata Mbengue Ndiaye ñëw au conseil des collectivités territoriales voilà la Président. troisième institution mhm. du Sénégal ñoom ñëpp teew nañ fii parce que dañu respecter protocole républicain gis nga président Bassirou Diomaye fay lu mu def dafa jóg dem fekki ko. Ah, comme que président Aminata Mbengue Ndiaye waaw ma ngoog macha allah comme que dafa am tuuti jafe-jafe. Mm-hmm. si tànk yi. moo tax mu dem fekki ko. te loolu yar moo koy maye. non non dafa yaru. na solo loolu. xam cëru mag. Mm-hmm. te loolu il faut ndaw ñi gën ko xam aussi. Mm-hmm. li président bi di wone exemple si jikko. yu rafet dañ ko war a roykaat institution yi noonu Abdoulaye Daouda Diallo conseil économique président du conseil économique social et environnemental ils se connaissent parce que ñoom ñaar ñëpp ay inspecteurs des impôts xamante nañu bu baax <laughs> liggéey nañ fa euh, daje nañ fa ñoom voilà Sénégal nag bëri na ay inspecteur des mm-hmm. impôts ay domaines yuy def politique de plus en plus voilà du moom voilà mesdames messieurs honorables invités C'est des gens qui se connaissent. comme euh, Diomaye, Amadouba, Ousmane Sonko, Abdoulaye Daouda Cher Ba, Cher ancien directeur général également des impôts et domaines, qui est directeur général de la Banque agricole actuellement. C'est des gens qui se connaissent, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont travaillé à la direction des impôts et domaines pendant des années et qui ont contribué à essayer cette institution euh, au sommet des régies financières et qui contribue à renforcer l'économie du Sénégal. Ibrahima xew-xew bi jeex na président bi. voilà génn na ci salle bi xam naa nekk li ci des mooy mënul dem. dafay dem si euh, salle mi ngi nii di romb suñu kanam. tu uh-huh, vois uh-huh. dafay dem si euh, salle euh, salle salon d'honneur bi. Uh-huh. maanaam salle bi ñu ko jagleel. fa lay dem parce que à partir de maintenant sécurité am léppam. Mhm. waa garde présidentielle ñoo koy gérer. Mhm. protocole am waa garde présidentielle ñoo koy gérer. waaw ñoom daal dañoo xaw a nëbbu. Mhm. waaye liggéey bu am solo la ñuy def. président bu fi mën ci nekk da nga doon wax léegi ci affaire euh, suñu force de défense et de sécurité yi seen taxawaay rafet na lool ci réew mi. Mm. comme ni nga ko waxee suñu soldat suñu jàmbaar yi waa gendarmerie waa police. sa euh, sapeur pompier waa euh, douane wax dëgg yàlla seen euh, taxawaay ci réew mi am na solo lool te ñoo ngi nag doxalee seen wàll ci waar bi comme nuñ ko waree doxalee ak nag xarañte gu mat sëkk ànd ak dal nekk nag ay républicain yu mag a mag mag a mag xam seen réew xam seen waa réew xam seen liggéey te di ko doxalee ci anam ñu mu gën a rafetee ñooñ nag ñoom tout temps saay bu ñu nekk ndax duñ leen gërëm ndax seen liggéey la ñuy def waaye dañ di ñaanal yàlla gën yàggal seen taxawaay muy kilifa yeeg kilifa yi nga xam ñoo nekk ci armée bi kilifa yi nga xam ñoo nekk ci gendarmerie euh, kilifa yu police bi yeeg waa sapeur pompier yeeg waa douane seen liggéey am na solo lool rafetlu nañu ko loolu macha allah dañ leen di ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay gën leen am may nag doole euh, ak gën a yokk seen xam-xam ba nu gën a mën a servir seen réew am na solo loolu kon nag séance bi comme dañu ko levé woon dañ doon xaar rek euh, ñi nga xam ñooy gan yi ak it njiitu institution yi daal di ndokkeel son excellence le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye léegi nag euh, ay soxnaam it ndokke lañu ko euh, bi loolu wéy nag ñu yeewi rek foofu lañu ko jagaleen mi ngi foofu toog ak yenn gan yi di waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom après nag ñu xool suite bi Ibrahima cérémonie bi di ba voilà gis nga ñoo ngi nii mooy musique